wa jacalahum qudwatan lil aalamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bukki daara ji yi dellu si waat ak yéen gannaaw bu ñu leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te di leen ziyaar itam te jiite ci ziyaar bi Maulana Chérif Mohamed Ali Haydara ak njaboot gu jege géeg gu sore gi waaye di ziyaar jullit yi yëpp itam di xam am rek benn parenthèse maanaam benn diggale ñu ngi si sunu dajee US ñu ngi doon waxtaan ci ku màgg kooku di imaamina amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi waroon na am leneen lu yokkoon ci li ñu jotoon a wax ci moom ndax moom waxam wax ci moom du jeex ay téere yu bare bare bare boroomi xam-xam bind nañ ko ci gëstu nañ ko ci waaye incha allahu danañu ci dellu siwaat naa tey rek ñu bëggoon a waxtaan tuuti ci xew-xew ñu fàttaleku ñaari événement wala ñaari xew-xew yoo dinañu leen tudd ci bis yi muy li ñu tuddee al muy njëlbeenu yonent wooteeg yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ak li ñu tuddee al isra wal mi'raj muy jóge ko makk dem baytul muqaddis dem jóge ko baytul muqaddis itam dem ci bërëb yu kowee bu ñu delloo ci bu ñu demee ci loolu ñuy tuddee yowmul mabaas ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab li ñuy gis rek moom mooy ne bu ñu tuddee loolu rek al day daj alquran boobu nga xam ne moom la ñu sunu borom subhanahu wa taala baaxee xewalee ñu ko te ko ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alquran moomu nga xam ne suñu sang yi sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dafa wax ne moom alquran boobu dee daa am biir ak ci biti ak biti biir ba am ay biir biir yu bare bare bare bare tudd na ci juróom-ñaar tudd na ci juróom-ñaar fukk tudd na ci juróom-ñaari téeméer tudd na ci juróom-ñaar fukki junne ak yeneen yi nga xamante ne yëpp borom xam-xam yi ñu leeral nañ ko sax ci wax jooju bon alquran lu ñu ñummala loo xam ne moom ci boppam moom alquran moo waxal boppam ne maa farat maa fil kitaabi min shay'in lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir mu nekk téere boo xam ne ci lu mu mën a don boo ci jaaree mu wan la yoon wu woo xam ne moo lay jëmale ci sa njëriñ moytu loola la lay mooy téere bi nga xam ne yahdi lillati hiya aqwam fa man ittabaa fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ku ko topp doo réer doo xamadi fooy ña fooy jaar te doo tasi mukk loo xamante ne da loo lor addina ak àllaaxira téere boobu nag ñu wàccee ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali wàcceeku ci xolom bi xolam bi ba demee ci boromi xam-xam yi ni ñu ko bokk na ca lañ ca nettali ñu ne téere bi dafa am ñaari wàccin ñu mu wàcc bu njëkk ba mooy ñummi alxuraan ji inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka shahru ramadan alladi unzila fi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan boo ko doon xaw a dendale tey ñu tuddee taqrib day wax ni bu dee alxuraan boo ko bëgg doon nun ni niróole rekk la nag ci ay misaal ni benn programme benn programme wala benn serveur wala boo mooy li nga xam ne mooy ab machine boo xam ne mbooleem lu de ay ay ay soxla ay information yoo xamante ni nit dina ko aajo ci wàllu woowa te alxuraan moom lépp lépp lépp la nga ne bis booba ba ñu tegee alxuraan ji machine ba yëpp anzalnaahu moom mooy ci weeru koor ci laylatul qadr ci lañ ko teg loolu mooy wàcc bi nga xam ne moom mooy bu doon tey nga ne boo ko mënoon misaal nga ne mooy installation bi nga xamante ne bis boobu ñuy installé loolu nga xam ne mooy alquran nga xam ne mooy gib mooy lii gindi képp wala lépp lu mën a mën a doon ci adduna bi eh, nga xamante ne loolu mooy leer nga xamante ne moo waxoon nañ ko suñu sang bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali di wax te ñu waxoon leen fi ci téere yi bokk na ci Ahmed bokk na ci Nuurul Absaar fi manaaqibi ali nabil Muxtaar bokk na ci boo demee ci euh, Jawaahirul Maani wala al irshadaatu rabbaniya xadiisu nuur nga xam ne sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo wax ne ba yàlla naree bind daal booba la bind ci différentes euh, versions yi riwaayaat yi ñii tudd ay ay ab ab diir ñii tudd ñu ko. la bind si ñu leeral sama leer gi ak leeru imaam ali alayhi salaam ba mu bindee aadama jël leer ga def ca muy toxalu ci ndiggulu set ak biir bu set ba dem ci abdul mutalib mu nekk ñaar benn ba jaar ca abdul adaman benn ba jaar ca euh, Abu Talib di imaam Ali suñu ñaari leer dañuy ci Fatima ñu jur Asan ak Useynu ñoom ñaar ñooñu dee ñooy leer lañ ci leer yu leeru suñu borom subhanahu wa taala bon leer googu nga xam ne moom la yàlla njëkk bind mooy leeru sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi mu la jaar fu ne fu bare bare comme ni nga ko waxee ci ay yonent yi fi jaar yëpp kenn ku nekk nekk benn écran boo xam ne da ngay feeñal la ca biir télévision ba la ca ordinateur ba moom la lay feeñalal moom ngay bés mu feeñalal la ko ci écran bi moo tax boo ko fayee du tere mu fa bon leer googu bu doon ci misaal man ngay wax ne muy leerul muhammadiya wala alxaqiqatul muhammadiya moom la moo wàcc ci bis bu guddi gu màgg googu mooy laylatul xadr mooy laylatul xadr kon machine ba keroog lañ ko installé ci xolu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci waxin ndax wàcc alquran ju wàcc bu ñu ko waxee léeg-léeg ñun ci sunu déggin dañ koy déggee ci wa wàcc turu wàcc boobu mooy lu jógee ca kaw tiim sa bopp wàcc jëm ci say tànk ku ñu loolu lañ koy déggee ngay déggee na ci wàcc rek la mooy firi mooy lu la jógee kow jëm ci suuf waaye wàcc bu dee ci li ñuy tuddee al alaqa al ufuqiya wala relation horizontale muy sunu diggante ñu ne ñunu neen ci sunu déggin ak li ñu xam ne moom lañuy dund la muy firi mooy lu jógee ci kaw ci sa kaw bopp jëm ci sa suufu tànk ci misaal waaye bu dee li ñu tuddee al alaqa al uf al al umudiya wala relation vertical wala boog lu jógee ca ko jëm ci jaam bi wala mbindeef bi bu boobaa la muy firi mooy jógee ko ci anam woo xam ne diis na ci sunu gin ñëw ci loo xam ne mën nañ cay jàpp ba yokk sunu mën nañ cay jàpp waaw mooy di nga tuddee ci tubaab dévoilement mooy feeñal bu ko defee alquran jooju nga xam ne moom la sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moom la ñu wàccee léppam ci xolam wala boog moom lañu ñu def gars yi di léeg-léeg bu ñuy inauguré walla ñuy daloo ab bërëb jël plaque ba muur ko jikki ba sa kanam ñi daal di ñëw jël euh, lañu muure woon plaque ba daal di ko wuññi ñëpp jàkkaarleeg ñoom bon loola nga xam ne mas di jóg ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa ali kër lañ ko wuññi nag pour ñëpp bokk ci salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala ahli baytihi tayyibina tahirin bu ko defee loolu mooy wàcc bu njëkk ba mooy wàcc cëllu ko kenn mënu doon a jotee yëg ci loo xamante ne mën nañ cay jot nag léegi waaye mbokk benn programme boo ko bëgg a dérouler c'est-à-dire mbir moo xamante ne ñëpp ko bokk mu war a daw ci jamono ba ba adduna bi di tukki wala mais imaamuna jaxfar ibnu muhammad as-sadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi day wax naan alquran nee na comme jant bi la rek bis bu nekk rek mu tiim lu mu tiimoon dimb wala lu mu tiimul ah, bis bu nekk nga jëriñu ci tax boo jàppee ne ñi tiimoon daaw rek ñoom rek ñoo ñoo ñoo ci jëriñu lañ ci am rek la loolu la yow bon jëriñu kon alxuraan jooju nga xam ne dindi nañu nag plaque bi mu war a commencé nag gi liggéey bi commencé ndax deferoon nañ ko ba pare waaye tey nag inauguré nañ ko dindi nañu plaque bi mu war a commencé nag di dérouler nag ay programme am tey ñu jàngal la lii ëllëg ñu jàngal la la tey ñi xamle lii gannaaw ëllëg ñi waa ñi ñi problème bële te ñi netti lële pour nga am cey jàngat ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon bu beneen yi ñu jox la ay farata yoo xamante ne da nga koo war a def ndax yooyu mënul ñàkk bu anaaw ëllëgee ñi wax la loo xam ne ay ngëneel la bu beneen ba ñuy la ay jikko yoo xam ne yooyu mënu mënul ñàkk pour adduna dox bu ñàkkee kenn ku nekk lu la neex nga def sàcceeg waaw fen ak rambaajeg yongaan ak lu la neex nga def bu beneen yoonee ñu jàngal la nan ngay mën a exploiter jëfandikoo lii nga xam ne moom la yàlla bind te bind ko kenn lu dul pour kenn ku dul jaamam yi rek bu beneenee ñi bin jàngal la loolu nga xam ne moom nga cay ame nan nga ko war a jëfandikoo ndax da ko war a garder defe ne yaa ko moom wala da ngaa war a xam ne mustaxla fii na fii rek la benn yow délégataire de pouvoir rek la dañ la ko dénk rek boo liggéey ñu jël ko jox ko keneen loolu programme boobu nag programme mu alquran bu yaatu boobu nag danaa bu sunu borom subhanahu wa taala machine ba nag installé ko wala boog mu dévoilé li ñu tuddee euh, plaque bi pour wan nag léegi nag liggéey bi daa war a commencé bis ba muy war a commencé nag booba nga xam ne nag dañuy indi nag léegi léeg léeg di régler problème yooyu ma tudd ak yeneen yu yooyu moom mooy vingt sept rajab moom la ñu tuddee yowmal mab'as ci lañ ko yónni nag ne ko léegi nag waaw saal yeeg programme beeg lépp indi woon nañ ko waaye bi nga xam ne nag ci la bi war a commencé nag tey la loolu moom la ñuy tuddee yow mul mabaas wala nuzulul waxi ab tadriji waaw muy la descente graduelle du Saint Coran waaw di wàcc par tuuti tuuti ñu naan aaya ba wàcc na ci bërëb nangam sababu nuzul ba nangam la loolu boo demee itam sunu ay may salaamullahi alayhim dañuy wax ne ku ci tënku waaw sababu nuzul ba dafa amoon benn circonstance bu mu wàcc mais yow bis bu nekk nag dal wàccee yi itam muy di def nga nekk sababu nuzul sa mbir mooma nga xool lan la la ci wax ak loo ci war a def salawatullahi wa salaamu alayhi bon loolu mooy a nuzul ak tadrij ji mu nga commencé ci bis boobu li ñu tuddee al ci ay maanaam waaye ci maanaa boobu nga xam ne mooy feeñal li ñëpp bokk di ko wàccee par tuuti tuuti ci ndax buñ ko wàcce woon law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytuhu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillahi waaw kenn attanu ko moo tax ndànk-ndànk lañ koy wàccee ci nga xam ne ci ñoom lañ ko jëmale na dañ ci delluwaat sax beneen bis moo tax ñuy wax naan yonent bi euh, euh, euh, ummi la waaw ummi la waaye ummi ji jële mooy ka nga xam ne ndabam la daa taxaw ñu am bëgg luñ ci sotti kooka ummiyim ba mooy ndab la dara nekku ca waaye ummiyib ki nga xam ne moom moo yore la ñu war a sotti ci ndab la mooy ummiyi ba moom day judduwaale loolu moo tax bokkuñu waaw bokkuñu ummi yib kële mooy ndabam lu dara nekkut waaye man nañ caay def dara mu tàllal pour ñu defal ko ca ummi yib kii nag mooy moom dafa julliwaale la nekk kenn la war a nekk kenn ndabi gaaya moom moom la indiwaale salawatullahi wa salaamuhu alayhim wa waaye balaa ñuy dem rek dañuy wax ni wax yu googu nga xam ne at tadriji moo commencé wàcc ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nu nuzul te wax naa ne nuzul bu ñu ko waxee ci sunu dundin ñin ci sunu dund li ñu tuddee alxayatul ijtimaai maanaam ci sunu dund nii rek ijtimaai bi nga xam ne moom la ñu dund ñin mais suñu dund nii ñu nu neen mooy lu bàyyi ko ci kaw jëm ci suuf mais lu de bàyyi ko ci sunu borom subhanahu wa mooy wàccee degré ba moo tax alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa ali di wax naan dafa am zahrun wa badnun ila sab'ati am abtunin ci benn riwaaya yi mooy dafa am biir ak biti jëm ba ci juróom-ñaari biir yenn yi mu ne juróom-ñaar fukk soixante dix yeneen ñi ne juróom-ñaari téeméer sept cent yeneen yi sept mille ak leneen lu ko ëpp yoo xam ne wax nañ ko waaye lañ boo wàccee maanaam ba mu toll ci lii nga xam ne ñun moom lañuy ñuy mën a jàng baat yii nga xam ne boo ko tiimee gis ko buñ ko waxee nga dégg ko loolu mooy wàccee niveau ba wàccee mustawa ba ba ñëpp ñi mën ci jot waaye firiwut luñ bàyyi ko ci kaw jëm ci suuf ndax mu ngi nekk ci sangu sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo tax wax yooyu wax yu boobu nga xam ne mooy nag wax yu risaala wala lu dafa am ay dafa am na yeneen i façon wax yoo xam ne léeg-léeg bu ñu deful ndànk mën nañ ko jaawale amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayhi bis dañ ko mas a laaj dañ ko mas a laaj ne ko ci waxyu labdul waxyu baatu waxyu ci alquran mu ne ko am na li ñu tuddee waxyul nubuwa wa risala am na yu ñu tuddee waxyul ilham waxyu ishaara waxyu amr waxyu kasb waxyu taqdir waxyu xabar ak waxyu risala salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxyu nubuwa dafa am mooy leer googu gib boobu njubal googu njub googu nga xam ne moom la moo nekk ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci leer gu njëkk ga da jaar ci yonent yi yëpp moo tax alquran dañuy wax naan inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuhin wa nabiyina min baadi wa awxaynaa ila ibrahima wa ismaila wa isxaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa wa ayuba wa yunusa wa haruna wa suleymana wa atayna daawuda zaburan ci suratu nisa yëpp waxyu naa leen wax yu risaala boobu moom la ñu yore woon ak nubuwa booy mooy bu bu yonent yi moom lañ doon wax léegi am na booy wax ilham baat bi suñu borom jëfandikoo na ko wa awxinaa wa awxaa rabbuka ila naxli waaw yàlla na maa wax yu euh, muy wala euh, kii euh, yëmb loolu ilham la inspiration la dañ ko inspiré am na wa awxaynaa ila ummi Moussa an arda'ihi ay dem doom euh, yaayu Moussa ak histoire ba bi nga xam ne ñun xam nañ ko sunu borom subhanahu wa taala moo ko yénkee waloon moo ko inspiré woon ne ko mu jël doom ji teg ko ci Euh, kii bi euh, ci euh, taabut bi daal di ko dugal ci ndox mi am na wax yu ishaara yoo xam ne dañ lay junj waaw fa xaraja ala qawmihi min al mihrabi fa awxa ilayhim an sabbixuhu bukratan wa asila maanaam ashaara ilayhi mooy mooy loolu moom mooy ishaara ci sunu histoire sunu euh, euh, Mariam ak Zakaria ak yonent yàlla Isa boo demee ci histoire ba am na wax yu taqdir yoo xam ne da nga koy defar defar ko ba ñu ne nii nii la fii fii laa yem moo yem yemale waaw xaa fi kulli samaa in amraa leen lu nekk ci surtout Fusilata am sama bu nekk yàlla am na nu mu ko tëralee noo xam ne noona du ko romb man la jàdd foofu nga xam ne fa lañ ko de am na waxyul amr wa is awxayda ila alxawaariyina an aminu bi wa bi rasuli loolu baat boobu wax yi boobu la may firi mooy digal nañ leen nañu topp nañu gëm yu eh, suñu borom subhanahu wa taala gëm yonentam bi am na waxyul kas bi wax yi boo xam ne baat bi jëfandikoo nañ ko waaye fen lay firi shayatin al insi wal jinni yuuxa baaduhum ila baadin waaye zuxrufal qawli rek ko xululan seytaane nit ñi jinne ñi dañuy ñoom ñaa ñoomu neen dañuy déeyoo wante di inspiré wante di laaxante biir di waxante ñoomu neen waaye lañuy wax yépp nag lu ja lu lu dul dëgg la wax yu rafet rek la waaye dara dul ci dëgg nga tax loolu dafa bare wax yu rafet boo xam ne boo ko déggee ni kii te fekk la ñuy wax dara amut waxyul xabar am na wa jaalna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lama sabaru waxyu boo xam ne information lay indi waaye xeetu we mboolem yi ñu wax ci wax yu nga xam ne baat bi alquran indi na ko yooyu yëpp yi nga xam ne moo arrêté moo mat sëkk dara desatu ca mooy wax yu risaala ak nubuwa bi nga xam ne mu ngi jaar ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nga xam ne dara dootu ci yokkooti waaye dara dootu ci wàññeekooti moo tax itam ci yokk ñàkk yokk googu nga xam ne moom la meloon ak ñàkk wàññeeku googu nga xam ne moom la meloon fokk jamono bu nekk yàlla dina am ci benn machine bu mu ko def ci waxin ci benn xol bu ko mën a yenu boo xamante ne dara du ci manqué loo xam ne ci moom lañ koy def mu nekk kenn ku ko bëgg ku nekk la nga ci soxla war koo mën a fekk foofu jëli ko loolu mooy aimatu ahlul bayti salawatullahi wasalaamu alayhim yi nga xam ne jaaroon nañ fi ak yéen mooy aima yi mais yeneen ñi ci des yëpp mën nay am waaye yooye nga xam ne moom lay moom mooy am kenn ku nekk responsable nga ci loola yow waaye amoo sañ-sañu di ko divulguer di ko jox nit ñi maanaam ne kenn nekkoo responsable ci joxe ko waaye kenn itam ne amul obligation ca lan ko lu la nga da def yow mu nekk loo xamante ne lu war lay nekk ci moom di nekk lu war ca keneen waaye du nekk itam aw sañ-sañ ci yow pour nga joxe ko boo gisee ne baax na nag boo ko jox mu bëgg ko jël ko bu ko defee li nga xam ne moo wàcc bon ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ci bisu weeru koor bi mooy loolu nga xam ne kii laylatul qadr moom la sunu borom subhanahu wa taala di wax noonu innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun laa yamassuhu illa al mutahharun waaw wala mooy li nga xamante ne ña yàlla setal dindi leen ba benn luy tilim tilim wala bàkkaar du nekk ci ñoom ñooy mën a yegg ca fond booba nga xam ne mooy loolu ñi ci des nag dañuy wàccee rek waaw maanaam dañuy indi rek bu ko defee nga da ci am ñëpp bokk ca la nga xam ne mooy zahir ba mooy la feeñ waaye baatin ba nag ku gën a seet rek yaa cay ëppale wax na ku ci bare bare bare wa kulli shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin bon téere bi lépp a nga ca lépp nag ku mën da xam lépp mënoo ci rek waaye da fexe ba la nga ci xam ne moom nga ci mën a am rek nga daal di ko jël bon bis boobu nga xam ne mooy vingt sept ci la programme bi commencé nag déroulé wu di génn par ndànk-ndànk ci la ko yàlla itam jël lii nga xamante ne mooy baat yu ñu mën a tudd wala yu ñu mën a bind te façon bañ koy bindee loolu itam qur'aanan arabiyan googu arabiyan ñi def ko mu da arab loolu bis booba la commencé waaye alxuraan ëppanti nag li ngay gis nii ndax lépp rek moom mooy alxuraan suñu bi nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala woon ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa mu nekk bunt bu yaatu boo xam ne moom rek doyoon na ay waxtaan yu bare bare moo tax xam naa incha allahu bu dëppoog dogal borom bi danañ ci dellu lu bare bare nag wax nañ ko ci loo xam comme niñ ko waxee ñu ngi naan dafa euh, bi muy wàcc yonent bi xamu doon ni moom la xamu doon ni ab yonent la doon jaawale ndax jibril moom seytaane la wala malaaka la ay moom xam naa moo tontul boppam te kuntu nabiyan wa aadamu bayna nafsi wa nasam aadamu bayna almaa'i wa tiini ak yeneen yu bare bare yoo xam ne moom itam incha allahu danañu si dellu si waat bu ñu ci suñu ñaareelu tomb bi mbokk yi muy li ñu tuddee al isra wal mi'raj muy li ñu gàddaay non euh, rañaan rañaan lañ koy tuddee ci wolof rañaan mooy dox guddi am na ay téere yu bind ne loolu mu ngi am ci sunu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi ci bisab ñaar fukkeel ak juróom ñaar am na ñu ko bind waaye loolu amul ab dëppoo ci boromi téere yi ci bindkat yi amul ab dëppoo am na ñu xam ne dañu wax ne ci bis boobu la am mu ñaar fukkeelu fan ak juróom ñaar ci a jàpp am na ñu xam ne ñuy wax ne mu ngi am ci ñaareelu at bi ci gàddaay bi comme di Ibnu Abbas netti xam naa boobu moom dañ ko koo wax waaye boobu judoogul am na ñu ne ci ñetteelu at ba ci gannaaw bi bi ñu yónnee yónent bi ci maqaas bi mooy gannaaw bi ñu yónnee yónent bi ci ñaareelu at ma am ñu ne ci ñetteelu at ma gannaaw bi ñu ko yónnee boobu gàddaay amagul am na ñu ne ci juróomeelu at ba ñu ne juróom-benneelu at ba am na ñu ne ci fukkeelu at ba am na ñu ne fukkeelu at ba ak benn ñu ne fukkeelu at ba ak ñaar gannaaw gannaaw dañ ko yónnee moo gën a wóor am na itam ñu ne fukki at ak fukki weer ak ñett gannaaw njëkk muy gàddaay ci la loolu am ñenn ñu ne juróom benn weer garaa muy balaa muy gàddaay bon wax ji ci boppam bare na lu ñu ca wax moo tax ba mën ngay wax ne ca lu aju ci jamono wu heure ba jubóo wuñu loolu moo tax ba xaw nga mën a wax bon ni li nga xam ne moom la ñenn ñi wax loolu moom moo gën a yenu maana mooy am na benn rañaan boo xam ne ci la yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ci lañ ko joxe julli waaye loolu benn la ca rañaan yi nga xam ne def na ko moom sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa jëlee nañ ci imaamuna jafar ibnu muhammad asadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu wax ne uriya bi nabiyi sallallahu alayhi wa alihi ila samaai miatan wa ishrina marra ما من مرة إلا وقد أوصى الله سبحانه عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله bil wilayati li aliyin wal a'immati alayhimu salaam akthara mimma awsa bil faraid nee na moom imaamuna Jaafar ibn Muhammad as-Saadiq di doomu imaam al-Baaqir di doomu imaam Zeynul Abidin di doomu imaam Xuseynu alayhi salaam di doomi alayhimu salaam di doomi di rakki eh, imaam al-Xasan di doomi Fatima ak imam ali di doomi sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu ne yonent bi yàlla yéegee ko maanaam def na li ñu tuddee rañaan lu war a mat téeméer ak ñaar fukki yoon cent vingt fois naam am benn yoon boo xam ne lu wut yàlla dénk na ko li nga xam ne mooy sas wi nga xam ne imaamuna amiril muminin ali ibn abi talibin moo ko war a yore gannaawam muy jiite jullit yi ndax moo leen ëpp xam-xam moo leen ëpp lépp te moom la yàlla désigné ak ñi nga xamante ne ñooy njabootam gi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw nee loolu lim ko ko dénk moo ëpp sax lim ko dénk ci ay farata waaw bu loolu doxul naa yem farata yi yi bari boo demee ci yeneen téere yëpp yoo xam ne dañ lay wax ne la yonent bi def na li ñu tuddee al isra muy rañaan googu lu ëpp ñaari téeméeri yoon bon loolu benn la ci wane ni rañaan gi ay yoon yoon yu bare bare bare la waaye nag am na ci benn boo xam ne ci la ko yàlla joxe farata foofu itam dinañ fi nettali dégg nettali yu bare bare ñu ne yonent muhammadin sallallahu alayhi wa ali bi muy rañaan mu demee ba ci asamaan yi fa taseeg yonent yàlla ibrahim yonent yàlla Moussa di yonent yi yëpp premier yonent yàlla Adama ba mu demee nag ba ci yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Moussa ndem bay dëpp mu ne ko mu laaj ko ne ko loo indiwaale ne ko jox nañ ma juróom juróom fukki julli de yoo xam ne pour sama xeet la ne ko dëppal delluwaat ndax lii nga wax nii saw xeet duñu ko attan irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu bi dalik la ko dellul si sa xel attanuñ ko mu ne mu daal di dellu ñu wàññi fukk ñii ne juróom muy wàññi da wàññi ba yegg si juróom mu ne ko dellul ndax man sama xeet natt naa leen te lii nga lii nga yore nii attanuñ ko waxuma la ak sew xeet yow gaa ne nag de am naa kersa nag pour dellu ko mu ne yàlla ni ke waaw yàlla am naa kersa pour de da laaj yàlla ne ko man laa yu baddalul xawlu la day yar li ma waxoon rek mooy am léegi def naa ko juróom yooyu juróomi julli yi waaye nag ku julli juróomi julli yi ci guddi gi ak bëcc bëcc bëccëg bi ak guddi gi juddu gu nekk danaa ko jàppee fukk fa hiya xamsuuna fi ummil kitaab wa hiya xamsun la da alayka juróom laa la ko moom laa leen waralal waaye la ma bindoon moom du ma ko soppi te mooy def naa ko muy nekk juróomi juróom fukki julli maanaam tiyaa booy juróom fukki julli loolu la ñu wax waaye boo demee ci njàngaleem ahlul bayti nag salawatullahi wa salaamu ñoom étape bu mu yonent yàlla Moussa boobu tuddi ñu ko jàpp ne yonent bi yàlla dafa dem dafa dafa yonent yàlla da ko dogalal rek lam ko dogalaal bu ko defee muy juróomi julli waaye yàlla def ko mu nekk ngëneelal comme ni mu ko waxee ci yeneen aaya alxasanatu bi asri amsaaliha boo joxe benn rek ñu jox la may la fukk loolu la yàlla def ci lépp nag bu ko defee loolu itam nekk benn point ci wàllu julli gi loolu moom loolu lañ ci wute yonent bi itam beneen kii bi itam mooy maraaxil fan la jaar boo demee am na ci ay wute yu ci am ñenn ñi ne alquran dafa ne min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak na xawlahu am na wax yu ci am ci boroomi xam-xam yi man nga cee tudd ñett benn bi dafa ne cheikh bu abi ci la ñu ko muy ci diiwaanu abu talib booba nga xamante ne foofa la ñu dajee woon ba ñu leen defee embargo ba ñeen ñi ne ci néegu ummu haani muy seeru imam ali alayhi salaam foofu la jógee ko ñenn ñi ni masjidil haram ci biir jàkk gi la jógee ko boo demee ci njàngatu ahlul bayti salaamullahi alayhim ñu wax ne bi nga xam ne mooy boobu boobu mu ngi jógee ci jàkk ja mooy bi bi julli wàccee waaye yeneen yi ci des nag mu ngi jógee ko rek ci biir màkk naa def ci soobu abi talib wala néeg umu hani wala ci yeneen beneen bi mooy suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bi nga xamee ne dem na jóge ko màkkatal mukarram suñu borom subhanahu wa taala transporté ko te loolu jamono bii war na gën a leer ndax ku ne xam na ne transport fi mu ne wax dëgg yàlla nam nekkoon bu njëkk melatu ko léegi transport ci dox wala ci gëlëm ak mbaam wala ci ay oto ki yi demee noonu bu ci avion sax ne fusée sax am na te yu ko gën a gaaw mu ngi ñëw mu ngi fi yàlla bàyyi ak jàmm moo tax yonent bi yàlla yóbbu ko ci alburaax mu ànd ak jibril dal baytul muqaddis ba mu demee baytul muqaddis nag dafa yaatu mu ngi njëkkee tuuru Sina déyante fag wala dajee fag yonent yàlla Moussa ñi wax mu julli fa dem baytul laxma lu ñu tuddee Bethléem foofu la yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Isa juddoo mu daal di dem nag baytul muqaddis foofu la dajeeg yonent yëpp ñu daal di ko dajee mu daal di leen jiite ci li ñu tuddee histoire bu rëy rëy boo xam ne am na diggante yahudi yi ak jullit yi ba léegi sax jamono bu ko defee mu daal di yéeg ba mu yéegee nag mbokk yi foofu itam am nañu wax ne gisante na faak sunu borom bil aynil mujarrad ci sunu bët bi ñuy xoolee suñu bët bi ñuy xoolee am na ñu ko wax waaye boo demee ci njàngaleem ahlul bayti salawatullahi wa salaamuhu alayhim dañuy wax ne bët bi mënul gis yàlla ndax bët bi mbindeef la te lépp luy mbindeef lu nekk mënul gis lu dul mbindeef te sax gis bi ñu koy wax ci diggante li ñu tuddee li ñu ko doon wax suñu diggante ñunu neen mbindeef la muy firi du bokk ak la nga xamante ne ci sax loolu bu ñuy xool ci li nga xamante ne moom lañu bokk di mbindeef ni ñun la mais bu ñu demee ci maana bi yaat yi gis naa fi nga ma taxaw gis naa say say say jëf gis naa nangam ak nangam yooyu du firi gisab gisab nii loo xam ne day dekk jëmm joo gis bu dee ci suñu digganteeg suñu borom nag ak yëg lay nekk waaye du nekk ak gis ndax gis te dañ ci dellu siwaat bu soobee sunu borom subhanahu wa taala dafa aju ay mbir yoo xam ne mooy mën a am bokk na ca li ngay gis nekk yow te ngeen bokk itam mm, luñ leen bindee nekk matière ba bokk bokk na ci itam ngeen am distance boo xam ne mooy jaarle seen diggante ak leer goo xamante ne jaar na seen diggante nga mën koo gis bokk na ci itam loo xam ne day am fu mu nekk te lu nekk ci beneen boor ba ca nekk te loolu yëpp suñu borom huwal awwalu wal axiru wa zaahiru wal baatinu wa bi kulli shay'in alim danañ ci dellu seet incha allah moo tax boo ne li nuriihu min ayatina la wa taala mooy da ko doon wan ay mbir ah, ko doon wan ay mbir na ko fa àjjana wan ko fa ay malaayika wan ko ay nit ñoo xamante ne seen lii lañ doon jëf lële mu nekk am njàngale ak geneen ak geneen waaye lu nuri yow min ayatina moom julli moom itam nga xam ne moom la sunu borom subhanahu wa taala wàcce mën ngay ne ci téere yu bare bare bare moo xam ci kuréelu julli di yëpp wax nañ ne julli moom bi moog islam ñoo ànd wàcc bokk na ci li koy leeral mooy abu taalib ridwanullahi alayhi aw salaamullahi alayhi bi yonent bi sallallahu alayhi wa woote la wax doom yi ne leen dem leen wéttale seen doom yi eh, bàyyi tax ji mooy yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ban wër na ne julli moom lu amoon la même bu fekkente ne nekkuloon farata nag ci ñëpp waaye amoon na am na ci ñu xam ne dañuy wax ne julli googu dafa nekkoon ñaari ràkk suba ñaari ràkk ngoon ñii ne ñaari ràkk kese la woon ñii ne ci julli yonent yàlla daawuda ci lañ doon julli ñenn ñi ne yonent yàlla ibrahima wax yu bari nañ ci lool waaye li leer daal mooy julli moom ba islam wàccee booba la wàccaale ànd ak julli ñu ne ko julli waaye booba nekk loolu obligatoire ci ñëpp am na rek ñoo xamante ne ñoo daan julli ànd ak sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali loolu bokk na ci koy wax wax mooy fa ñu doon jàngalee ca daarul arqam yenn ñi sax da ngaa dégg ñu naan moo toj tax ba wala noddaloo bilaal waaye loolu moom nodd moom booba ñëwagul loolu incha allah xam naa sunu bind yi ñu bëgg jégale julli spécial yooyu yëpp nañu si dellu si waaye bon julli amoon na daan nañ ko def bi nga xam ne sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa na ñëw itam indiwaale julli nee na ñu julli suba la njëkk julli ndax julli na gee wala julli na guddi boog jógee koo fa dem euh, euh, yàlla yéegee ko ba mu dellu siwaatee julli gëm njëkk julli moom mooy julli suba ci loo xam ne ñu bare bare wax nañ ko waaye ba mu ñëwee nag ci makkatal mu katam julli gëmu yëmu indiwaale ñaari ràkka ñaari ràkka la woon lu dul timis am na sax ñeneen ñu xam ne dañu wax ne timis ñaari ràkka la woon waaye boo demee ci njàngaleem alul bayti wax ne waxees na fa ne ñaari ràkk la woon ba mu def simis am na sax ñeneen ñu ko wax ku demee ni Buxaari ci xadiisu eh, trente neuf trente cinq ci téere yi ñu yàqul wala muslim boo demee ñoom ñëpp bind nañ ko nee nañu bi loolu amee mu nekk ñaari rakka ñaari rakka bi mu demee Medina te lu mun a war gàddaay ci la ñu yokk ci yeneen julli yi li rubaax yi yëpp ñu yokk ci def leen ñu nekk ñeenti rakk mooy tisbaar takkusaan gee ko defee yooyu dañ koy wax ñeenti rakk la ñaari rakk yu mujjee mooy la ñu mujjee digal sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi mu mu dolli ko ci donc loolu ñaari ràkk la woon moo tax ñu wax ni li nga xam ne moo doon cosaanu julli te mooy ñaari ràkk bu dul timis bu fekkee da tukki ñaari rakk yañ ca dolli woon moom lañ lay dimbiloo muy salaatul xasr muy julli wàññi julli ayu tukki moom nga cay wàññi bu ko defee nga bàyyi ci la nga xam ne moo doon cosaan yi te mooy ñaari rakk ñaari rakk yi moo tax naafile yi itam ñaari rakk lañ koy def wax jooju comme ni ma ko waxee léegi boo demee ci buxaar yi noonu ko fay fekkee boo demee ci muslim noonu ko fekkee waaye noonu lañ ko jàngee itam ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jaaree ko ci waa këram ñaari rakk la woon lu dul timis suba ñi bàyyi ko noonu yi ca des ñu yokk ci ñaar ñaar boo demee sax ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci njàngale mi nga xam ne moom lañ jàngee ci njabootam googu dañu wax ne ba mu ñëwee medinatul munawwar weer rek la fa toog yàlla jox ko ndigal pour mu yokk ci julli yooyu muy ñeenti julli yu am ñeenti rakka yi tey ti takk tisibaar takkusaan ak gee benn bu nekk ñu yokk ci ñaari rakk benn bis itam ci la gàddaay gi am ah. waaw benn bis ci la am yàggut ñii ne ruuxu la gàdd ak jëmm ñeneen ñi ruuxu rek la ba demee ci ci xawaari ji ak yeneen ci jullit yi am dañuy wax ne ruux gi rek a dem mais jëmm ji demut waaye eh, boo demee ci njàngale ahlul bayti moom salaam moom ay alayhim moom dañ ne jëmm ji ak ruux gu ñoo dem moo tax sax imam Saadiq salaamullahi alayhi boole na ko ci ya nga xam ne ko gëmut nee nekkoo ñoom seeni taalibe ñoom ahlul bayti salaamullahi alayhim comme niñ ko waxee léegi gis na nee na ñu borom ba ak bët bokk na ci ña ko nettali xadis yooyu ko demee ni Ibnu Abbas xam naa dañ ko ko nettali waaye moom boobu judoogul ku demee ni suñu yaay Aïcha wax nañ ne itam ñett li na ko yaakaar naa booba itam fekk gu mu nekkoon soxna sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bon daal julli kiyee rañaan gaa ngóog suñu sangi muhammadin sallallahu alayhi wa ali junji ay yoon yoo xam ne buñ ci jaaroon tey suñu ruux dana gën a kowe dana gën a sell dana gën a suñu dëkkin ak dëkkoo dëkkoo ak dëkk dëkkan dëkkoo ak eh, di ñëpp ñu dëkk ci jàmm loolu dana gën a mën a yokk ndax yëg ne yëgal nit ñi ne nit nekkul da ngay toog rek ci benn bërëb waaye nit dafa am possibilité man-man di yéegal ruuxum di yéegal jikkoom di yéegal jëflanteem digganteem ak sunu borom subhanahu waaye di sellal itam jëflanteem digganteem ak moroomam ba du ko lor laa darara wala diraar comme ni ko sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi du ko lor du ko gaañ du ko fekkee fuñ koy gaañee te loolu itam amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi mi nga xam ne mooy baabu ma ilmu nubuwa mooy buntab xam-xamu dëkk ko xam-xam bi nga xam ne moom la yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wax wax na ko ci ay wax sañ-sañ ak i warugar yoo xamante ne nit kenn ku nekk am na ko ci dund am na ku ci économique am na ko ci yeneen ak yeneen incha allah bu dëppog looga la bi ci rajo Moussaïr FM 93 point 2 di kàddu njabootu yonent bi ci ay Dakar ak ci Zahra FM 93 point 8 di kàddu njabootu yonent bi ci Kolda ak li ko ak ci mboolem réseaux sociaux yi ci euh, euh, ahlul bayti tv saxir tv musahir tv ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay mbokk yu ñu àndal ci réseaux sociaux yi ci groupe whatsapp yeeg yeneen ñu deme noonu incha allahu danañ ci dellu siwaat bu dëppog dogal ak borom bi boobu mu doon seen mbokk